jërë jëf mbokk yu safoo jamono TV dellusiwaat nañ ci kattanu borom bi subhaanahu wa taala fas yéene leen indil xibaar yi tey jile tey nag mooy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tubaab atub ñaari junne ak ñaar fukka ak ñett lu gën a fës si suñ bopp xibaar yi jamono ji daal maane ak liggéeyam dafa mel ni dañ fa fàtte daal GTS muy Gambia Transport Service bi nga xamante ni mu ngi fii si Jimpex te gars yi kenn laalul ko beneen bopp xibaar danañ ko dem jëli ka nga xam ne daal président Adama Barrow baalal na ko daal mooy Pape Ibrahima Thiam mi nga xamante ni daal jamono ji jégal nañ ko waaye ñu bari daal nee nañ su ko bàyyitoon yi su faatoo si kaso yi eh, dëram dafa yàqu mooy dëru nguuram dafa yàqu dinañ dem seeti nag mbiru tàggat yaram ñu ànd seeg Marie mànga comme niñ leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi fii si jamono TV euh, li si gën a fës daal bokkoon na ci moom mooy GTS bi nga xamante ni daal jamono ji fa nga xam ne fa la ñuy ebee seen nit ñi di leen yóbbu ci diggi réew ma ak bëgg réew ma dafa mel ni mbaar yooyu ba tey gars yi guñ ko de ñu ngi ko fa bàyyi daal waaye lan moo tax dajeeguñ ko ak lan moo tax ñoom maane ak groupe am euh, mënuñ dajji place boobu ba léegi jamono ji nag place boobu ña fa doon jaaye jaayee tuñ fa dem waaye daal li gën a liñ fa gën a gis mooy maane ba muy dajji kantinu jigéen ña muy daj it mbaari ña nga xam ne ay xale yu góor lañ ba muy daj it ña nga xamante ñoo doon jaay ci mbedd mi ak di eh, di toxal moto yi di leen génnee ca mbedd ya jamono ji daal dafa mel ni ña nga xam ne daal ñoom ñoo amee doole ci réew eh, bi nga xamante ni mooy boos yi gars yi dañ leen fàtte de maa jaar na fa waaye ba tey daal place boobu mu nga fa moo tax daal askan bi ñu ngay laajte ndax jamono ji golo di béy baabu mu dunde la wala doole bi daal ci nguur gi la nekk loolu moo tax ba tey ña fare ca nguur ga gaa yaa ngi leen seetaan ñu ngay def lu leen neex waaye maanee daal ak gaayam GTS bi nga xam ne moo nekk jimpeeg gaa yaa ngi leen bàyyi noonu daal seen ginnaaw mu ngay gunaandaat waaye ña nga xam ne ñoo leen génnee ci mbedd bi gaa yaa ngay ba tey tolof tolof lañ nekk di jànkooteel gannaaw ba nga xam ne fañ doon witee seen ñàkk amatuñ fañ ko jëlee ba tey dinañ dem jëli ah, beneeni xibaar bi nga xamante wax nañ leen ko gannaaw ba nga xamante ne président Adama Barrow doomi Manka Bankunda bi ak Jimara bala naka nga xam ne moom mooy Pape Ibrahima Cham mi nga xam ne faatoon na benn xale bu jigéen fii ci réew mi waaye Pape daal gars yi nee nañ su ngeen gisee président Adama Barrow baalal ko mu génn ci kaso ya ñu ne daal la muy feebar moo bari waaye ñaari yoon ñu ngay xotti yaramam di fa génnee ay wéradi loolu mooy lu ñu dee waa opéré loolu def nañ ko ko ay yoon ñu bari nee nañ ci kaso yi nga xam ne foofu la tëddal wér gu yaramam daal demeewoon noonu de loolu moo tax président Adama Barrow génnee ko foofu su faatu woon ca kaso ya gars yi nee nañ daal nguuru président Adama Barrow dina gën a naqari lool lool lool ci wàllu dëggin ci wàllu gisin loolu moo tax daal Pape Ibrahima Thiam dafa war a génn de su nekkul loolu dina faatu ci kaso ya de te su faatoo sa kaso ya dafa mel ni deru nguuru président Adama Barrow dafay gën yàqu fii ci réew waaw ñu bari nee nañ daal ku def lu ñaaw nga am lu ñaaw su dee ci kaso yi baax na su deewutee ci kaso yi baax na gannaaw ba nga xamante ne rey na xale bu jigéen ba te xale bu jigéen bi du delsiwaat te jamono ji ay mbokkam ñu ngay continuer di dund dundinu poraatu te xale bu jigéen boobu moo amewoon seen dund kon dafa mel ni suñ génnee Pape Ibrahima Pape Ibrahima Thiam suñ ko génneen dafa mel ni kon rey nit dafay nekk fii ci réew mi saa su ne jamono bu nekk rek dañ koy mën a saxal parce que dañuy wax ne suñ ne moom it réewoon na benn xale bu jigéen xamante ne ni amoon naa ñeneenti at mooy Mamadou Camara moom it gars yi bàyyi nañ ko gaa yi nag nee nañ daal président Adama Barrow ña nga xam ne ñoo def gal gilaawaali yu mag a mag fii ci réew mi ñoom la jéggal ak kañoo kañoo wax ne Yaya Mballo moom it bàyyi nañ ko de moom it dafa réeboon benn xale bu jigéen bi nga xam ne amoon na fukki at ak ju ak ak ñeneent Ousmane Balde moom it dañ ko bàyyi doomu Yooraar la moom it dafa réeboon xale boo xamante ne am na juróom-ñeneenti at kon dafa mel ni ñu président Adama Barrow bàyyi ñii reykat lañ ñii reebkat lañ loolu nag ab lajte la bi nga xamante ne askan bi ñu ngi koy laaj nguuru président Adama Barrow gannaaw ba nga xamante ne euh, jawrin ba nga xam ne moom lañ dénk mbiru yëgle ak yéebaane di honorable Jammeh mi nga xamante waxoon na ne nag président bi daal ñii ñëpp soo gisee mu baalal leen wéradi moo nekk si seen jëmm te ragal nañ ñu faatu ci kaso loolu moo tax gaa yi génnee leen ba tey dinañ dem jëli beneen xibaar bi nga xam ne ab politique la MC Cham Junior mi nga xam ne kenn du ko naatable ci réew mi si wàllu politique ak doxalinu politique fii ci réew mi jamono ji nag moom it seqoon na waxtaan ak jamono TV lam wax lam yee yàbbi nag su ko defee rek ñu yàble ko nga xam moom tam mu ngi ci too bi nga xam ne moom ak Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda fii ci réew mi jamono ji nag euh, MC ngi ko doon laaj naka la gisee too boobu gannaaw ba mu bokkee ci political party boobu di UDP ñu déglu MC Cham Junior te dellusiwaat. waaw euh, gis naa taxawaay bu nga xam ne commitment euh, gis naa ko si supporter parti bi kenn ku nekk dafa jël ownership ne parti bi ñoo ko moom suñu bos la and loolu dafa am solo si si si parti ah, kenn du xaar kenn ah, lu ñu gis ne structure yaa ngi intact dara mënu koo seeg so loolu gis nañ ko tam peut gis nañ tam suñ ootee ñëpp a génn ñëpp ay ñëw mm. waaw ñëpp ah, benn bennoo baa fa mm. loolu lu am solo la mm. gis naa ko si si si si sofa too bu nga xam ne maa ngi ko demaat ñoom waaw lu ma gis mooy gis naa ne bala nga balaa délégation bi di ñëw sax ñoom feesal nañ bàyyi bi di xaar ñu ñëw gis nañ ko fa tam gis nañ tam commitment bank fa dedication bank fa bu ko sen parti bu ko sen rew lu yëpp gis nako fa. ganna ba ngeen deglo MC cham Junior dinañ dem nak seti xibar bi nga xamne jot nañ ko mu jowe ko ci Ibrahima soriba mi nga xamne dal jamono ji mu nga bokk si mom tam ci political party bobu di UDP wa jamono ji nak mu nga bir kama Ba jamono ji nak elek wax na ne dal inshallah ñom dinañ am programme bu maga mag bi nga xamantene ni dinañ ko indi dinañ ko def ca bir kama Ba ganna ba nga xamantene ni dal euh, mayo o talib ben fura mu ngay wor rewmi te jamono ji nak ñu nga tollu bir kaamu ba te fofu lañ fasiyene def seen mitin bi nga xamne ni mom moy mitin bu gëna mag ca ah, bir kaama ba ci tundu bobu di fuladu ak ah, benen tundu buñ tuddee eh, ñaani ja bobu ñom ñetti tundu yoy mom la gaay di bolé fasiyene def fa ben programme bu maga mag lu xew nak ah, bir suba wala Sinthiou Dembel suba moy dekk yu nga xamantene ñom cross capeton jógee NPP ñew eh, eh, ñenenti dekk yoyu Euh, ñoom ñooy ñëw ñu euh, ci rallye boobu suba ci Sinthiou Dembel euh, waaye mën na am ñu am ñeneen ñoo xam ne dinañ ñëw Cross Capet waaye fu mu ne nii leeraguñu nag waaye li leera leer rek mooy His Excellency lawyer Ousseynou Dabo dafa ebal Lord Mayor pour mu ñëw mu mu mu dox réew mi yëpp constituency bu nekk rek goxi député bu nekk dina fa am ñetti mitin su ko defee ñu gërëm nit ñi sant leen ci jàppale biñ leen jàppale woon ci woote bu passé bi même bu dee bee na nit la sax am na solo ci dëkk kon nag Sinthiou Dembel li fa xew suba mooy eh, ñeneenti dëkk yi ak yeneen dëkk ah, dañoo dañoo ñëw ñu daje foofu ci Sinthiou Dembel ñu am rali bu mag su su ko defee ñu waxtaanee fa ah, eh, réew mi ak eh, lan mooy intérêt si réew mi dem kanam réew mi dinañ ko waxtaanee ci affaire politique. ci loolu la ñuy duggee xibaari tàggat yaram ak Mari Manga. talata bu weesu ya, ni gambie duñ jongante ak cameroon cameroon do gambie si ñetti bal si ñaar guinée doon jongante ak Senegal sénégal do guinée si ñaar bal si dara angola doon jongante ak burkina faso angola do burkina faso si ñaar bal si dara mauritanie doon jongante ak algeria mauritanie do algeria si bena bal si dara man la mari ma nga si jamono media and products comme nu leen ko mari manga indilee suñ euh, jiit yi ñoom nag jamono ji wàcc nañ liggéey gannaaw ba nga xamante ni daal euh, euh, Cameroun mujj na leen dóor dóor yu métti métti ñoom tamit jamono ji foofu la yàlla yemale seen seeni tàggatu yaram ba beneen atati ñu ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala beneen at yii di ñëw yàlla may ñu tim bu mag a mag su ko defee rek ñu am kob bi jamono ji nag Sénégal ak ñeneen ñi ñoom ñoo fa des yii xibaar lañu leen ameloon tey jile fii si jamono TV seen mbokk la woon Salifou Thiam moo leen nekkoon ci àddukaay bi ka leen nekkaloon ca gis bi ba ngeen may gis nu mu yëmbee aji faatu Niass moo ñu nekkaloon ca caméra ba ka ñu nekkaloon ca jag-jagal ba mu jag muy Ami saabali borom Talinding jërë ngeen jëf